effectivement première journée zone 3 Woguin VSS Walidane mu nekk première journée te xam nañ ne jour balaa moo dugg ci terrain d' abord day compétitif donc man de ma part personnelle je ne suis pas compétitif pour l'instant en plus défaillance physique dafa nekk ci man parce que entraîné goo ma normalement kon waaw jàpp naa ne bala nga dugg ci terrain bi pour fournir 90 minutes il faut nga am capacité mentale physique ak yëpp soo ko mën a dugg ci biir terrain bi sama daal loolu la d' ailleurs j'étais kon donc nekkaguma dans un bon état de forme quoi loolu tax départuma tey ci match bi je ne suis même pas dans les 18 aussi mbokk yi noonu la ñuy dégtale ak yéen ngeen dégluñu si li nga xamante ne téléspectateurs yi si euh, Baol TV euh, kon nag euh, incha allahu rabbi di ngeen am lépp li nga xamante ne mooy information si wàllum li nga xamante ne moom mooy nawetaan